Nous avons ne une ville parce que Yonf n'est plus un village c'est une ville même si affectivement on a l'habitude de dire notre village ça c'est affectif mais la réalité concrète de notre commune c'est une réalité urbaine bon nag ñu ngi am de ci di demander nous ñu demander ñu aussi nettoyage sama yéene mooy lépp loo xamante ne la muy oto bu yàqu ñu gaare ko ci trottoir yi am na benn waay boo xamante ne am daf may abal plateau ak fourchette ak pelle weekend bu jot rek may jaar mbedd di teg oto bi te bàyyi ci oto bi di ko feneen parce que loolu mooy tax dëkk bi am ñii liggéey ba pare bayyi seen gravas ci mbedd mi mais loolu wax dëgg yàlla du yoon am na brigade boo xamantene état bi dina ko teg en place pour defante loolu dañ la daan maa ngi ñaan yàlla daan yooyu waa Yoff bañ ci bokk parce que danañ ko toppatoo bien avant brigade boobu di intervenir may demandé que ku nekk rek nga bale devant ta porte bu ko defee porte yépp set Yoff set may wax ne parking bi nekk ci jumaa ji

de coup dans la compétition des territoires bu ma compétition des territoires il y a 557 communes au rendez-vous du donner et du recevoir nous bu ñu nous waa Yoff dañu war taxaw sigi xool les 556 communes ne la première commune du territoire national s'appelle Yoff Y O 2 F loolu dafa am solo lool L'OLA la compétition du territoire pour que mon âme, il faut que les femmes y il faut que les jeunes y mais tout cela adossé sur une conscience citoyenne et culturelle extrêmement forte parce que nous ñu que mots que nous Yoff am cosaan